salaamaaleykum amis téléspectateurs salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo Equivox TV bienvenue tey ñu ñëw ak yeneen feem yu bees ak leneen loo xamante ni lu nar a neex sénégalais la tey nag ma jàkkaarloo ki nga xamante ni moo di Malcom le grand comédien le grand acteur waaye yéen ngi seen biir émission influence influence nag bu ngeen ko déggee lépp la ñuy jël incha allahu rabbi waaye tey maa ngi jàkkaarloog Malcom doon taalibe Mame Baye Niass Malcom maa ngi maa ngi delloo ziar bu baax a baax sama doom day uh-huh. un très grand acteur aussi. <laughs> di nuyu euh, internautes yi nga xam ne dañoo bëgg dañoo safo Equivox TV. Uh-huh. di leen wax ni tey émission bi war naa neex. Uh-huh. mais di fa jaaree aussi tam di nuyu sama kilifa yi. kilifa diine yi. Euh, kilifa aada yi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk Sénégal yàlla na yàlla dooleel leen. amiin amiin di wax émission bi lu ñu fi nekk yàlla na jur njëriñ. amiin euh, Malcom tey ñi ngi waaj li nga xamante ni moo di Malcom. Comedy Club Comedy Club ñu gis la mm-hmm. jàpp amoon jàppoon nga ko. mais ko li nga xamante ni Covid daal ñëw. daal ñu daal koy pousse daal nga daal jàppaat daal. Mm-hmm. Euh, tey Malcom Comedy Club lan la ci Malcom bëgg wane exactly parce que gis nañ la nga nekk ci ay facettes yu bari. en mm-hmm. tant que acteur mm-hmm. mais boo defee comédie ñu ni Malcom Comedy la gën a mën. Euh, xam nga Malcom Comedy Club dafa nekk premier comedy club au Sénégal boo xam ne. moom mooy def euh, le stand up ce qu'on appelle le stand up en anglais en Euh, yàlla dimbali ñu ci ñu koy woyeel mhm. ba tey mën naa ne dañ ci am fataxu lan mooy fataxu bi mooy am nañ ci ubbeeku boo mhm. xamante ne si saa ñu ko defee rek yàlla yàlla yàlla taaral ko mhm. et puis di la wax rek nañ xam nga affaire yi suñu borom moom mooy dogal dara ci yow après nit ki nag moo ko war a jëmmal li may wax chaque jour rek Malcom Comedy Club chaque jour préparation buñ ko defee bu amee dara lu ci am dañ xam ne ndogalu yàlla la mais defee tax ñu gën a ñu gën a préparé donc jàppoon nañ ko corona bi ñëw. Mhm. actuellement jàppaat nañ le 24 juillet. Mhm. Equivox TV nag moom nee na wax dëgg yàlla événement bi ñu mënu ci dara. <laughs> suñu événement la comme mais Malcom qu'est-ce qui euh, la différence entre les acteurs parce que tey Malcom boo ko gisee mu nekk par exemple ci série bi nga xamante ni moo di maîtresse d'un homme marié wala Malcom nga gis ko Renaissance wala Malcom nga gis ko Saax et Mangane dañuy gis benn touche bu nga xamante ni chaque instant bu Malcom ñëwee day différent mhm. boo xam dafay ñëw tout le temps mais la répétition liggéey dafa am solo. Mhm. bu kenn nax liggéey dafa am solo. li ngay def da nga ko war a maîtriser da nga ko war a gëm. Mhm. suñu borom mu taaral ko. Mhm. yàlla nag dina am leneen lu mu def ci loolu baatin bi la. mais liggéey bi dafa am solo. ndax dëgg neex yàlla man bàyyi ñu seetaanuma ci loolu. parce que am na loo xam te ne si ci xam-xamu euh, maarifa. tey cinéma day mel ne ñun ñoo ko moom. Hmm? facettes yi réalisation bi. instant déjà vu rewind yi. yaa gën a comprendre quoi li ma donc loolu bu xasee ba nekk ci yow. pour ñu jox la n'importe quel rôle nga jël ko. Mhm. ça sera pas du problème. Mhm. mais comment tu fait pour adhérer ci yenn yenn série parce que aussi euh, gis nañ acteurs yoo xamante ni ci benn domaine rek la ñuy nekk maanaam bu nekkee ci benn série ci série boobu rek la nekk mais tey Malcolm est-ce que talent bi nekk ci moom moom la réalisateur yi gis wala producteurs yi moom lañ gis ba à chaque instant ñu bëgg Malcolm di bokk seen i waaw mais est-ce que xam nga man série yi may gis sax bëriwut. <laughs> Ah, non non déedéet bëriwul <laughs> non bëri na parce que tey buñ saaxee mangaan ma ma ca renaissance man fa. c'est la vie def nga fa benn voix boo xamante ni allah et ni Sénégal yu ci bëri bàyyiwuñ ci xel mais def nga fa voix boo xamante ni waar xam naa après ci émission bi ñu ko di nga ñu ko mayaat incha allah. effectivement xam nga comme sànq li rek. su <laughs> waay na ba te moom mooy dogal li Euh, yi gën a am solo dañ ci bokk mhm. union européenne bu defee dara casting bi dañ ciy bokk mhm. bi bi dem netflix saaxoy maangaan bokk nañ ci mhm. canal plus dawal na ñun bokk nañ ci donc suñu borom moom mooy dogalee noonu bu ko neexoon tey ñuy joué xam te ne dem mais yàlla ñi koy def sax ñun gënuñu leen mais yàlla mooy taaral loolu donc alhamdulilah te dañuy ñaan mu gën a yokk loolu la ñaan mu gën a yokk Malcom nga gagné ay trophée euh, sénégalais yi ndax kii jëmu ji toog sénégalais ba dañ ko umpaleel nga am na ay trophées yoo xamante ne gagné na ko moom lay bàyyi mu mu nettali parce que nettali si gémmiñu borom la dàqale Malcom ñaata <laughs> trophée yi mais Sénégal damay gis à chaque instant bu dañuy bëgg dugg ci série affaire yooyu noonu mais eh, na ja ñaari trophée am na trophée boo xamante ni jël am na boo xamante ni acteur polyvalent ku ko jël. moo xaw a dàkkantal la rek. comme ni nga dàkkantal borom borom borom borom Velfrio bi. <laughs> non du du du dàkkantal euh, nga gagné deux fois meilleur step xaw ma stepender dañ koy wax genre mel. stendepeur stendepeur nga gagné ko deux fois. Eh, waa mais char naa leen. Eh, mu ngi baax. mbaye la ngi nice. jaajëf waay. c'est ça l'émission influence nii lañ koy defee bés bu nekk mais Malcom trophée yooyu tey ba ci ban année nga ko ji nga ko jël. Euh, dama toog benn jour rek ñu woo ma ñu ne ma euh, gars yi waa cinéphile. Mhm. ñoom ñoo ne d' accord nañu tu es l' acteur le plus polyvalent du Sénégal. Mhm. Euh, avant loolu. Mhm. sama xarit ñoom Tidiane dañ ma doon wax ni tu fais partie des meilleurs acteurs. mais la may liggéey rek donc loolu noonu encore une fois lu tax du ci bëgg di ñëw. man je me dis frère duñ nëbbante quoi. yàlla mooy dogal. même bu ñu jëlul prix ñii jox la ko. te ñu xam ne yaa mën mhm. wala li nga def yaa ci gën a mën mhm. wala li ngay stand up yaa ko gën a mën mhm. est-ce que dafa jar ku nekk di jug di tàccu ne yow la non non bu fekkee xam nga ne yow te boo ko defee sa morom ci le numéro un jarul wax jarul wax Malcom relation la am ak euh, acteurs yi nga xamante ni moo ci nekk parce que man def naa émission ak ki nga xamante ni moo di Edmo moom en personne mu ni ma euh, Malcom bu ma koy seetaan day mel ni du c'est pas c'est pas lui-même maanaam am na loo loo xamante ni moo nekk ci moom est-ce loolu acteurs yi nga xamante ni ñu ngi koy seede ci yow tey ji am nga relation yoo xamante ni yu nice la ak ñoom parce que aussi ku ne xam na ne acteurs yi des fois am na jikko euh, sama gars la Mr Edmond Jose. Mhm. sama xarit la acteurs samay xarit lañ. Mhm. acteurs yëpp billaay walaay samay xarit lañ. et nit ñu baax lañ. Mhm. nit ñu am jikko yu rafet. mën naa citer quelques-uns yoo xamante ne si buñ lu émission tar tar tar wala ñu tourné tourné. mais gars yi dañuy julli. bokk naa ci ñi gën a yées mhm. ñoo ma jikko fuuf mhm. gars yu baax lañ damay garder relation rafet ak ñoom mhm. fii Sénégal ñoo ko bokk Equivox TV Kaas bi TV téléphone bi TV table bi TV ñëpp Sénégal la ñuy kon bu rafetee rek ñu gën a doon ay gaayan dafay gën nice waaw dañuy bàyyi nag ba beneen ku jógee beneen dëkk ñu war ne ko ñu suñu télé ñoo ëpp doole man yéen laay safoo yéen laay ndamoo yéen laay tiitaroo yéen tamit man ngeen am parce que ñoo tey fan nga bëgg ni ni par chaque instant da damay gis ngay bëgg yokk yokku bi tey lan mooy objectif Malcom Comedy Club cette année. Euh, année bi ren li ñu bëgg mooy duma ma la nëbb frère ah, soxla nit ñu am qualité. Mhm. ñëw ñu wan leen ni li ngeen di dagg billet di ko uti ji international. Mhm. li ngeen di rey seen bopp à l'international à mhm. l'américain ñun on peut on peut le faire parce que dañu able pour def ko jàng nañ tuuti anglais jàng nañ tuuti français ak su bëri boo bëggee saafoonteeg benn kaana il faut nga jàng comme moom. Mhm. gars yi dañoo foog ne wax français bi dañuy am lu ñuy tiitaru déedéet. Mhm. dañ leen a bëgg a wan li ngeen def mën nañ ko comme yéen. Mhm. te yéen mënoo leen suñu bos. kon li ñu préparé moo nekk un très grand événement. frère loolu événement sax je peux dire événement cadreur yi la. parce que gis nga di gis image bu rafet nga mhm. koy jël mhm. borom du ca sonn du ca sonn dëgg la déedéet mhm. di toog ku lay jox information question bu Ousmane Sembène te nekk Magic Land le 24 juillet mbokk partir de 18 heures dana teel nag incha parce que ticket yi la woon 500 ticket lañ génne woon. 500 mhm. yi daanaka li ci des bëreetul. na gars yi parce que dinañ fa son et lumière. Mhm. gis fa un stand up boo xamante ni si à l'américain incha mhm. euh, kon yéen ko déggandoo mbokki téléspectateurs yi euh, moom nee dina jox sénégalais yi rendez le 24 juillet incha allah nee am image yu waaye ñun présentateurs yi. et eh, eh, eh, big up tas <laughs> sama père la tonton tas wax boo may xale lañ ma doon wax ay affaire uh-huh. tey ma gis ko rencontre bu naas mais père maa ngi lay ziar ça fait vraiment plaisir. <laughs> kon yéen Sénégal yéen ko dina dina neex dina yëngu ak Malcolm Comedy Club mais ñu gis la euh, ci say say affaire da ngay des fois da ngay génne ay jeunes talents. Euh, ma ma ma xam ci ku mel ni Rachid ma xam ci ku mel ni euh, ki nga xamante ni moo di Bachir ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni dama leen gis des fois ñu nekk sa keppaar tey Malcolm est-ce que mi ngi préparé loo xamante ni tey la nouvelle génération dañ mën a jariñu ci moom. waaw loolu bëgg nañ ko. Mhm. ñu ci liggéey nag. Mhm. xam naa yaa am exclusivité bi. Mhm. parce que bëgg nañ incha allah fii ay diir yu néew. ndaw ñi nga xam ne seen talent dafa jéggi dayo te gars yi suufeel leen. ñu war leen nan la ak naka la. affaire bi mayonnaise la rek ku nekk mën nga see capp am. capp soos la. lu ma lay soxoree te nga mën ko. damay sono sama bopp. parce que su ma dem feneen nga def ko. gars yi dañoo aay. Mhm. Rachid dafa aay. Mhm. Bachir dafa aay. Mhm. Tidiane du moromu kenn ci téye micro. Tidiane. Tidiane du en man li ma gis ci moom. yàlla na ko yàlla yóbbu Europe ba tey mu mel ni moom amiin amiin maanaam fi mu teg ba bëtam yàlla àggale ko fa amiin amiin parce que loolu affaire bi jaru siisante mhm. nañ koy yaatal mhm. man su may dem tournage ku nekk laay bëgg a àndal ne la kaay la ñu dem mhm. parce que loolu moom mooy àdduna bu ñu koy yaatalee rek mu yaatu incha allah euh, mbokk téléspectateurs yi ma defoon benn euh, gëstu bu ndaw ci ki nga xamante ni moo di Malcom euh, ñu ngeen mayu ñu rek Malcom jël tempsam daal di seetaan li nga xamante ni moom la ay mbokkam ak ay xaritam wax ci moom su ko defee ñu daal di ñëwaat Boubacar Sakho ñu gën ko xam ci Malcom waaw sama classe sama doomu ndey sama lépp ah. waaw depuis maag moom depuis Bango la ba tey en 2013 te dara ñaawul waaw un gars exceptionnel un gars très gentil et très jovial waaw di am mbégte lool nag ci xame bi yàlla def ñu am suñu diggante man ak moom. di ko kontaane lu bëree bëree bëree bëree bëri di ko ñaanal ci lii mu nekk muy comédie show bi mu nekk ci li muy yëngu lépp li mu entreprendre yàlla na ko suñu borom may ay ndami ndami ndami ndam barke borom Touba Malcolm je te porte ici man yow jàmm ci yow saa su ne. waaw damay sawar di wax ci Malcolm parce que nit la boo xamante ne du nitu boppam maanaam nitu nit ñi la. maanaam lépp lu mu lijjanti du lijjanti pour boppam maanaam pour nit ñi. ba lu mu am da koy partagé ak nit ñi lu mu yor lu ne nit ñi la koy jox. da nga koy jox daal yu bees mu jël ko maye ko mbaxana mu jël ko maye ko kurus mu jël ko maye ko maanaam moom il partage moom il est tout le temps social envers lu mu xam ne moom moo ko moom dafa social si lu mu moom te nit euh, nit ku woyof la ku ku ku tabe la ku lu mu am lu ne maanaam nit ñee ko moom. lu ma mën a wax si moom bëri na lool lool lool lool li nga xam te ne moo ëpp njëriñ rek lépp lu mu am la tamit Cheikh Ibrahima Niass moo ko gënal Baye Niass moom Baye Niass rek amul leneen lépp loo wax surtout Baye Demba si. moo la ñu suñu suñu bi moom Baye Demba beneen dimension la si beneen dimension. <laughs> lépp xamante ne rek moom am na am na loo xam ne taaliba Baye la rek moom bëgg na. surtout suñu bu ma wax léegi suñu Mawlaana suñu Cheikh Omar bi Mawlaana Baye Demba da ko bëgg ba ba ko bëgg gisee day du am envie def leneen lu kott ko wala mu téye ko. nekk ko si boppam di ni da koy wane saa su fu mu tool wane ko wane na dafa bëgg Cheikh Baye Baye suñu suñu suñu Cheikh Omar bi mooy Demba si. tamit nit ko la koo ni. moom bëggul kenn mer bu sañoon ñëppay kontaan ñëppay kontaan ñëpp ñëppay kontaan ñëppay am jàmm. waaw ndax saa su ne bu ñu nekkee kër ga jàmm déliré def affaire de lagara yi pimpo yi <laughs> waaw maanaam il est toujours il est toujours free waaw nu mu mel naturellement li ngeen gis télé bi dafa dof yooyu muy def noonu la mel noonu la mel à la maison noonu la fay def cool mooy loolu déliré ñëpp kontaan ñëpp ree di ko ñaanal yàlla rek. <laughs> laaj ngeen ma ci koo xam ne dinaa sawar a wax muy Malcolm nekk na nit koo xamante ni bi ne nit bu nit bu jafe xam la ci zaahir nii nit bu jafe xam la en fait nit bu yomba xam la nit bu neexa tamit àndal la ci baatin parce que rek moom xamante nañ yàgg na mu nekk suma classe ñu defandoo ma nekk son propre GDC propre garde corps donc am na lu bari loo xamante ne bii nañu jot naa ko xam ci moom te lenn dinaa ko partager ak yéen j'entends que dafa dafa compliqué dafa compliqué ci liggéey Malcolm dafa compliqué ci liggéey Malcolm wul ci live nekk na nitu dëgg nekk na nit ku baax nekk na nit koo xamante ne bii ku am yëg-yëg ci doomu aadama euh, di euh, frère Malcolm euh, donc Malcolm nag dafa nekk sama frère sama rakk nekk également sama sama meilleur ami loolu nag c'est c'est quelque chose de très rare à ngis gis euh, ñaar nit ñu bokk ba pare nekk nekk ay xarit man nag euh, loolu loolu moo dal ci Malcom maa moom dañoo nekk ay xarit yu vraiment intime et dañu am ay rela euh, dañu am relation vraiment yu particulier depuis xale nag ñooy ànd depuis xale bu ndaw depuis notre enfance ñooy ànd ba Euh, maa ngi fàttaliku bi ma nekkee xale daf ma dañoo toogoon benn jour mu ne ma dama bëggoon suñu takkee jabar maag yooyu ñu nekk ñu dund ci ci benn kër euh, loolu nag duma ko mos a fàtte loolu tey moo am euh, ñun ñoo bokk même kër bu ñu dëkk man ak moom ak soxnam ak sama soxna te loolu vraiment vraiment dafa dafa ma dafa ma neex quoi parce que moom ànd nekk ak moom chaque jour da ngay jàng parce que dafa nekk nit ku baax nit koo xam ne xol bi dara dara newu ci Euh, et loolu dafa dafa rare en xool bi dara néew ci te lu mu am da koy bokk nit ñi euh, te loolu man dafa nekk ay ay ay euh, attitude yoo xam ne ci nit daf ma daf ma amal solo bu baax a baax a baax parce que man nit loolu laa koy xoolee quoi nit nit dafay nite te moom loolu moom dafa nekk si moom sama rakk la mais ci côté boobu vraiment référence la ci man parce que parce que loolu influence ni lay demee bés bu nekk waaye tey Malcom nga seetaan témoignage yi nga xamante ni euh, say mbokk say xarit parce que li olof di wax bu ñu nee jiw baax na dañ naan ay mbokk ma ko wax ñi nga xamante ni yéen a nekkoon woon bàngoo ko ñii di say ñii di say euh, say tey ñu jël témoignage yi teg ko ci ki nga xamante ni moo di sa jëmm ji tey ban yëg-yëg nga am. je me <laughs> mais alhamdulilah rabbil alamin. Mhm. allahumma salli ala sayyidina yàlla dafa yàlla ku ku ku baax la te mën a baaxal tam. Mhm. ñu fi wax ñëpp sexaloo kenn lem. Mhm. forcé woo kenn. Mhm. ñoom ñoo la gën jikko. Mhm. nëbbal la sa yu bon ñu waxal la yu baax. man loolu moom ci gën a touché. aw nag seen fay benn yoon. Euh, commencé na par Alvin Alvin sama classe la. Faye sama classe la. te ñoom ñaar ku ci nekk dafa am noo taxawee. Alvin dafa tubaabe. te dafa bëgg loo xamante ne si chaque jour daf ma koy xam Malcom booy def comédie. da nga set. moom loolu lay dund. gis naa ko sax ci vidéo yi waaw waaw moom <laughs> dafa dund. faaya mu nekk Fàllilu Kulibali mhm. dama lu tax ma koy woowee nitu dëgg mhm. billaa wallahi taala nitu dëgg la mhm. ak a dëggu ak bañ caaxaan lu mu wax da koy def bu ne dinaa toj kaas bi dana ko toj may ñaan waajuram bu góor di sama waajur bu góor ndax maak moom ñoo bokk benn waajur ndax baayam sama baay la woon yàlla na ko yal na xippi aljana yu gën a kawe amin amin mu nekk koo xamante ne si il est très très très très très ouvert koo xamante ne si yitte nit ñi moom moo ko gënal moo ko gënal barki bàyyi ñes aw ma fayam mhm. moo njëkk a taxaw ne ma Malcom maay nekk sa garde corps fii ci Sénégal mhm. te ba léegi moom moo ko continuer mhm. te pourtant man je ne suis riche man je ne suis une star man du ma star et puis incarné wu ma ko mais tey moom moo may gën a poussé naan ma par force ko war a doon ak tam ki nga xamante ne si sànq jël ngeen ko muy Rachid Rachid mën naa ne bu du woon xarit mën naa ne sama doom la parce que dafa am fu mu toll ci man euh, d ànd dem tarbiya mu dem ma yóbbu ko sama sëriñ mu tarbiya donc tey maak moom ñoo bokk sëriñ ah sama xarit la doomam tey dem dem nañ ci tudd bi mhm. donc maak moom ñoo bokk benn ñoo bokk benn famille mhm. li muy wax yëpp ci Baye Demba dëgg la mhm. man Baye Demba laay xippee moom laay gëmmee moom laay defee lépp waaw lu may def sax su ma jiitalee Baye Demba dafay antu euh, ki ci nekk nag keneen ki tam muy Umar moom sama frère la vieux yaayam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay mais dafa am foo xam dafa ma toll tey ci moom mooy euh, gis nga nit dans la vie dans la vie lu succès ñëw même si tu es multimilliardaire, mm -hmm. même si tu es multimillionnaire, mm -hmm. même si tu es star, même si tu es connu, il mm ne -hmm. faut jamais négliger la famille. Famille de femmes, importance. Modestie de femmes, importance. Mhm. Humble de femmes, importance. Mhm. Savoir de femmes, importance. Mhm. Euh, tu es effacé, c'est très important parce que on ne on peut pas détenir le le monopole du savoir. Ah? Mhm. man chaque jour saa ñu toogee dafa am leen lu may jàng ci côté entrepreneuriat. Mhm. yàlla na yàlla fexe ba business am bi muy def. mu gën a law ba faw ah, man sama mag la mais tam suma xarit la suma kilifa la. Mhm. donc ñoom li ñu fi wax yëpp. baax baax bi ci ñoom la nekk nekkul ci man. mais tamit kenn gënu leen yéen waa waa waa Equivox TV. je m'attendais pas à ça mais yàlla na yàlla fay leen. amiin amiin amiin euh, lu la jëlee Bango da ngaa daw <laughs> da daw a moo gën a yomb nga man ma mère elle est digne. Mhm. ma mère elle est digne. sama yaay jàmbaar la c'est une guerrière. Mhm. elle n'a pas mis au monde benn fouteur de bordel excusez-moi. Mhm. ma mère a mis au monde un guerrier. man j'affronte tous les défis. premier défi pour góor mooy. mu takk jabar mu am doom mu kër. c'est pas solu oto non. non je suis pas dans ces détails. man faj sama yaay bu feebaree moom amal importance mhm. dimbali sama pap bu feebaree moom amal importance mhm. dimbali sama doom bu ama bu feebaree moom amal importance mhm. sama jabar bu feebaree ma taxaw à ses côtés dignement ak ak loolu moom moo importance donc je peux dire que ni j'étais dans l'armée j'étais digne j'étais fort un jour je me souviens j'avais des problèmes mais ñu ma pourtant mën nga dem infirmerie wala nga ñibbi ne rus naa ñibbi suñu kër te solo ma tënu ma mère soit très contente et fière de me voir ak tenue militaire. Mhm. et ça je l'ai mhm. gannaaw yàlla yàlla moom dimbali tey ba loo ma réussir ko. Mhm. donc def nañ suñu formation dignement ba yàlla may ñu ci diplôme après ñu ñëw et on a affronté tam la vie sur autre chose. man sama famille amul kenn koo xam ne dafay nekk te di def affaire télé. mais dañ ko affronté. yàlla dimbali nañ ci wala. macha allah euh, pour seede li nga xamante ni moom lay wax ci li nga xamante ni moom maanaam maay la famille dafa am importance sànq bi ñu ñëwee avant émission bi di commencé dama ko xool mu xool ma. mun ma sama jabar dafa feebar te moom dong laa bàyyi kër ga dama war a dem après nekk ak moom kon dool yaakaar naa ni day firnde li nga xamante ni moom la wax Malcolm l'émission tire à sa fin euh, lan ngay wax euh, la nouvelle génération ñi nga xamante ni peut-être ñoo bëgg a mel ni ñëw wala ñu sud la ci li nga xamante ni moom ngay def ak euh, maison de production yi nga xamante nekk nañ fi affaire produit yu bari lool la qualité bi am na fi lépp am na fi lakka ngay wax pour ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kaw pour ñu jéem a céder le passage aux jeunes talents yi nga xamante ni ñoo exemple ci yow mhm. jëmm ji ngeen di gis tase nañu tournage maîtresse d'un homme marié et avant sa mhm. bis bu ngeen juumee bu ngeen juumee ba dem sur Instagram wala ba ñu expliquer leen fi mu jaar mhm. vous allez faire doucement mhm. c'est un monsieur que je respecte énormément barki Baye Niass ku dee ak sa bàmmeel macha allah gis nga gars yi ngeen gis ñu yor caméra nii wala du yor micro nii ngeen ngeen yaakaar ni ça date juste de deux ou trois mois c'est demeewut noonu liggéey boo gis dafay jël temps liggéey boo gis dafay jël temps na maison de produit tamit di fay li ko jar. Mhm. di dimbali jeunes yi. Mhm. di leen encouragé te xam ne ñoom bu ñu dawalee oto. Mhm. ñun war nañoo yor pono. dëgg la ñoom bu ñu dawalee war a yor pono. mais ñoom ñu yor oto. yor ay 4x4 yuy jax te ñu am dara donc c' est pas du tout normal. donc di wax gars tamit ne àdduna nii la. jeunes yi bëgg a def cinéma. am na yeneen yu dul man tey ku ma ay milliards. ngeen foog ne damay continuer nekk acteur non <laughs> dinaa dem dimbali ci xam-xam bi ma am ci euh, ci cinéma mhm. en même temps dinaa ay tool dinaa de man famille baykat la mhm. man je suis pas né à Dakar et mhm. j'en suis fier man dëkku xam-xam laa jugee ñun ay ay ay ay kaw-kaw lañ man dañoo ñun ñun ci loolu lañ xam <laughs> dëgg la des fois sama xarit waaye doo ñëw boo ñu dem boîte ñu kii ne mel leen je suis pas contre damay dem comme ñëpp mais je à la quête du savoir su ma gisee damay raf man xam daf may daf may daf may yitteel sonn ci ni arme la. Mhm. moo tax tey daara famille kenn mënu koo laal. Mhm. ils sont complets ils sont blindés. Mhm. mën nga fi xëy yee benn un mois deux mois yaa fi toj est-ce que ça peut faire deux ans. non du tout donc liggéey day am fondement. ne jeunes yi day tijji fondement te xam ne gars yi tëbuñu rek yor caméra wala présenter. dañoo souffrir avant. donc affaire demeewul noonu. Sénégal nag day xewal. ay temps mbëri fi maintenant cinéma moo xew. mais faisons très attention. parce que li ci li ci biir moom moo tax. Euh, pour euh, jeunes yi nga xamante ni sama genre gi nga xamante ne ñu ngi ci milieu bi bëgg a doon acteur comme yow fa lañ la mën a fekk maanaam foo xamante ni dinañ mën a sàcc sa xam-xam tuuti maanaam fu ñu la mën a fekk fooy defee atelier truc genre yu mel noonu. Euh, amaguma nag fu may defee atelier parce que. day laaj savoir day laaj intelligence day laaj dayo mais je ne suis qu'un gamin qui commence déjà mhm. donc li ma mën mooy ku ma tasante ci mbedd mi je prends mon temps mhm. man maa ngi nii damaa bàyyi malade kër maa ngi depuis suba mais rus naa di annule yenn affaire donc je suis obligé de rester dignement mhm. et d'assumer aussi pas waxu yàkkamti ma wax tam lu am njëriñ donc man fu ma fekk mën na wax taan yéen xam-xam ci bu ma ko amee parce que aw ma xam-xam damay échanger ci xam-xam voilà amis téléspectateurs c'est ça qui met fin à notre émission influence ñu àndoon nag ki nga le grand acteur Malcom taalibe Mame Baye Niass ko ñaanal jàmm yàlla na jàmmam yàgg le mot de la fin jërëjëf Baye Niass bu amul app mhm. <laughs> ak